mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina door benn fan ci weeru a jeex fan weeri fan benn ci weeru janvier 2021 li bees ci jongante ren bi nag mooy concours bi ñuy am amal jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 million deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnuun. mbokk yi ginnaaw ban sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp. di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom jéggal tey borom yërmande mu boore du jéggal te yërëm nu di tàllalaat suñuy loxo di ñaan suñ borom lii nga xam ne moo sonal àdduna sépp te doon loo xam ne luñ ci dara ndax suñ borom rek moo ci mën dara suñ borom moo mee ci mën dara nag yàlla nañu dimbali ba teggi ko ci àdduna sépp ba delloo si waan ci suñu sagoo bañ nekkaat nañ nekke woon loolu suñ borom mën na ko jàpp nag yàlla na koy di tàllalaat suñuy loxo di ñaan suñ borom itam Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi taxawee taxawaayu Serigne Touba te lépp di itteem mooy doomu aadama yi lu yërëm doomu aadama yi mu yërëmande la dencal doomu adama yi ak bëgg taxawal lislaam yan na ko suñ borom dimbale ba loolee nga xam ne mooy yé mooy yéeneem tey bëgg-bëggam suñ borom defal ko ci kattan ba defal ko kattan ak wér ak man ak tal jàppaleel ko boppam ba lépp li yéen li yéeneem ci doomu aadama yi suñ borom defal ko ko li nga xam ne mooy yéenam itam ci doomu ci lislaam suñ borom defal ko ko tañ ànd kook moom ci dañ ci ngërëmu suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yan nañ ko defal ginnaaw loolu nag ñu ngi nekkoon di waxtaane ci li nga xam ne mooy doomu aadama dafa war a doon koo xam ne day xam lan mooy gëddam waaye nag xam sa gëdd tekkiwut nag nga bañ nga bañ a bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi yi nga nekkal ci doomu yi nga nekkal ci kaw suuf ni nga xamee ne ni nga bëgge ni nga fonkee sa ñu bëgg ni nga bëgg ñu fekk fonke la ni nga bëgg a wane sa jëmm bëgg ko wane li nga xam ne mooy sa tolluwaay na ko jàppal itam doomu aadama yi ngay xam ne moom nga nekkal bokk nekk ci kaw suuf nanga leen jàppal ñoom itam seen tolluwaay na nga leen bàyyi xel ci xam ne ay doomu aadama la ñu toll yu nekk yu mel ni yow lañ li nga bëgg lañ bëgg la ngay bañ itam ngay bañ li ngay bëggal sa bopp ñoom moom moom lañ bëgg li ngay bañal sa bopp itam moom la ñuy bañ ñoom ñooyee bu ko defee nag li nga bëggal sa bopp nga bëggal leen ko li ngay bañal sa bopp itam nga bañal leen ko ba tax na loolee muy xam sa bopp googu nga xam ne moom lañ doon waxtaane ci ajuma ji wees wóyu laa yóbbu ci nga nekk ci doon koo xam ne nag dalay yóbbu ci nga ñàkk ormaal yeneen doomu aadama yi ndax lislaam dafa waral ci doomu jullit bu nekk mu ormaal mbokkum jullitam do ne waral ci bépp jullit itam mu doon mu doon koo xam ne du xeeb kenn du doyadil kenn du def kenn loo xam ne lu ko naqari la du du du du ko du ko tuumaal ci loo xam ne itam nekkul ci moom du ko doyadil du ko du du du du fas yéen du ko doon koo xam ne itam day fexe ba bëgg a sippi daraja ki nga xam ne mooy moom la nekkal doom moom daa doomu aadama ji ji nga xam ne mooy moroomum doomu aadamam ni nga xamee ni la bañ a ku sippi darajaam ni la war a bañ a itam sippi daraja yi benn doomu aadama bu mu mën a doon ni nga xamee ne itam ni la bëggee ñu di ko woo ci tur yu neex ci tur yu ñu bañ koo woore ci tur yu ci aw tur wala aw melokaan woo xam ne ba da koy ni mu koy bañale boppam loolee itam na ko bañal doomu aadama yi du boo kenn ci tur woo xam ne da ko naqari wala mu di ko tudde wen tur woo xam ne neexu ni nga xam ni la koy bañale boppam na ko bañale jubli ñëpp noonu koo xam ne tam bu mu doon koo xam ne day jéem a doom mbir mbiri doomu aadama yi di xam lan la te lang ci jublu lépp itam mooy bëgg yàq seen der wala bëgg leen a suufeel wala bëgg leen a doyadil bu doon koo xam ne itam da ngay koo gis ku ne bëgg ñaaw njort ci moom di xalaat ci moom ne kat moom nii la wala nana la naa la ni nga ni nga bëgg képp ñëpp rafet rafet njort ci yow na ko defee itam doon koo xam ne dangay rafet njort ci doomu aadama yëpp na nga doon koo xam ndax ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk rafet njot ci doomu aadama yi wala di luñu seen mbir luñutu seen mbir loolu doon na loo xam ne dafa day day tax ba la waroon a dox seen diggante ci cofeel ak mbëggeel mën naa bañ a demee te ni mu war a demee te lislaam daa bëgg doomu aadama yi wala dafa bëgg jullit yépp ñuy soppante tey bëggante tey doon tey wormaalante kenn ku ne di jox sa morom worma ji nga xam ne moo la war moo la war ci moom waaye nag ni nga xamee ne ni la suñ borom bëggee itam koo xam ne day xam boppam koo xam ne day xam lan mooy taxawaayam xam gëddaam noonu la suñ borom bëggee itam kuy suufeel boppam maanaam torox toroxlu toroxlu nag bokkut ak toroxlu nag nañu xam ne bokkut ak doya dal sa bopp ndax doya dal sa bopp moom sabab mën na ko waral su tax nga doya dal sa bopp wala bëgg-bëgg waral nga doya dal sa bopp waaye toroxlu nag buñ ko xoolee ba mu jeex lépp ngir yàlla rek kay tax doomu aadama di ko def waaye du leneen loo xam ne moo koy boo ko ci xëcc ba tax na am na ku baax koo xam ne danaa wax ne doomu aadama day bu toroxloo wala mu suufeel boppam bu ko ci kenn dimbali bu ko ci kenn dimbali ndax dimbali googee day daal di da lay daal di yóbbu ci doyadal ko da lay daal di yóbbu ci suufeel ko te loolu suñ waru koo def benn doomu aadama loolu nag tax na ba kon toroxlu googu nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci doomu aadama wala moom la bëgg ci ab jullit mu nekk ndax bëggut benn jullit boo xam ne day rëy rëylu bëggut benn jullit boo xam ne day wonewu bëggut benn jullit boo xam ne da koy day doy le day day doxin wala muy waxin wala muy jëf jëf yoo xam ne day mel ni dafa bëgg wane ne moom moo nekk ci kaw doomu aadama yi te loolu suñ borom da koo bañ ndax loolu day tax li li li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci cun ci ñu nekk ay ay nekk benn di mën jàppalante di mën a dimbalante boo bu ne loolu jikko jooju nekkee ci yow day tax ba loolu du mën a nekk ba tax na ki nga xam ne itam dafa dafa dafa gis boppam waaye xamul boppam waaye dafa gis boppam kooku day tax ba li nga xam ne moo nekk ci ay ayib ci moom du ko mën a gis mbukk day tax na day tax na ba itam mag mata di nga xam moo nekk ci moom du ko mën a gis ndax day jàpp ne waxtu ne moom ku mat la day jàpp ne itam nii mu nekk nii mu mel mooy ni mu war a mel te loolu doonul loo xam ne lu koy dimbali la ndax doomu aadama ju nekk war ngaa waxtu wu ne war ngay tuumaal sa bopp ci xam ne melagoo ni nga xam ne moom la suñ borom bëgg nga mel ko melagoo ni nga xam ne moom la suñ borom bëgg ab jullit mel ko jàpp waxtu wu ne da ngay woon di gën digg war a gën a góorgóorlu war a jàpp sa bopp ne kat man mii ni ma war a mel melaguma ko ndax loola mooy tax ba fa nga war a àgg nga mën faa àgg waaye boo demee ba gis sa bopp ci jàpp ne man kat li ma war a mel mel naa ko nii liñ bëgg ci man itam àgg naa fa loolu dana tax ba lay dekk ci yow ci matadi ak doye di dootoo ko gis te loolu day doon loo xam ne mën na laa yóbbu loo xam ne doonut li gën mën na laa yóbbu itam doon nga li nga xam ne suñ borom bëgg ci bëgg na ci yow du nekk ci yow doon bokk na ci yi nga xam ne itam lislaam da ko bëgg ci ab jullit te ngëm yàlla di ko def ci ab jullit te yàlla di ko def ci ab jullit loola bokk na ca mooy nga doon koo xam ne dangay ngay am looy jomb muy tasaam yi moo tasaam yi moo di muy tekk mooy da ngay am looy jombale sa bopp da ngay am loo xam ne doo ko xalaatoo ko ci ne man mii comme ab jullit la di doomu aadama yoo xam ne suñu borom moo ma teral am na jikko ak melokaan yoo xam ne waruma ko mel ndax teraanga ji ma suñ borom defal ak doomu aadama gi mu ma def loola nag bokk na ci nga doon koo xam ne lépp loo xam ne ay caaxaan la ak lépp loo xam ne ay waxi neen la ak lépp loo xam ne jëf la joo xam ne amul njëriñ nga gi nga fas yéene ba loolee doo ca dugg ndax xam nga ne suñ borom yow doomu aadama nga tax doomu aadama suñ borom da koo teral te ku suñ ku suñ borom teral man waruma koo jéem a te dadal wala ma koo yóbbu foo xam ne waru faa nekk loolu nag mooy sax ba bu fekkee ne doon nga koo xam ne waxtu ne yaa ngi gis teraanga ji nga xam ne moom la suñ borom defal ak fi mu la teg ngay gis loolee day tax ba waxtu bu nekk sañ sa sa taxawaay bépp ak sa jëf yëpp ak sa wax yëpp dafay doon loo xam ne lu am njariñ lay doon dafay doon loo xam ne lu jariñ ñi nga nekkal lay doon dafay doon loo xam ne day jariñ sa bopp loolu nag moom la lislaam bëgg ci ab jullit mu nekk ko ba tax na suñu borom tagg na ñi nga xam ne doon nañ ñoo xam ne waxtu woo xamee ne ay caaxaan ñëw na wala ay wala ak doyadi wala ak wala ak matadi dugg na dañuy fas yéene ba loolee ñoom ñu ñu sori ko ndax ba tax na suñ boroom tagg jooñee ba wane ne ñooñu kat ñoo ñi nga xam ne fu ñu gisee nit ñoo xam ne nekk nañ ci ay caaxaan wala nekk ci waxi caaxaan wala ñu nekk ci jëfi caaxaan ñu wax leen ne yéen day xëy na am na fu ngeen jëm waaye man nag man itam am naa fu ma jëm bokkut ak fi nga nga ji fi ngeen jëm ba loolu tax na nag kon bëgguma bokk ci ji nga xam ne dañuy jaar fu ñu wër sa jaar wala dañuy doxee nu ñu wër sa doxee wala dañoo xamut seen bopp ni ñu ko war a xamee loolu nag moo ni wan ne kon lislaam diine la joo xam ne ni ko suñ borom wax ne wa kasalika jaanaak ummatan wasatan mooy def naa leen ngeen doon xeet woo xam ne da ngeen diggu doomu ëppalu leen yéesu leen ñooñu loolu mooy moo ne won lislaam ndax bu fekkee ne lislaam taree nag ku rëy rëylu nga daal di xam ne kon rëy rëylu baaxut ndax suñ borom da koo tere ba wax ne képp koo xam ne yaa ngi rëy rëylu wala lu toll ni fépp suuf nekk ci sa xol ci sa ci rëy rëylu bu ëllëgee doo doo tàbb àjjana kon mu mel ni nit ki dafa war a suufeel boppam waaye nag ni mu ba ni mu lislaam bëgg bañ bañe ku rëy rëy lu itam ni la bañe ku doyadal boppam bëggut kenn ku doyal doyadal sa bopp bëgg na nit ki xam teraanga ji nga xam ne moom la ko doomu aadama moom la ko suñu borom def ba waxtu ne mu di ko bàyyi xel di ko doxee di ko jëfe di ko feeñal ci lépp lépp jéego boo xam ne def na ko noonu nii itam da suñu borom bëggee koo xam ne da ngay toroxlu te xam nañ ne da ngay suuf da ngay toroxlu te xam nañ ne toroxlu ni ñu ko waxee woon léegi toroxlu moom sabab bu boo xam ne moo tax nga nga nga di ko def mooy bëgg doyadal sa bopp ngir am lan wala doyadal sa bopp ngir jot dara wala doyadal sa bopp ngir li nga fa nga ngir bëgg dara loolu moom moom la lislaam bañ waaye nag suufeel sa bopp ngir xam ne man doomu aadama képp laa te suñ borom moom mbind te mi ngi jàkkaarloog man kon wuruma woone lenn wala may doxee nen lu bokkut ak ni nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci ñun te kon mu mel ni kon toroxlu moom pas-pas boo koy def ci doomu aadama waaye doye di nag moom ay sabab rek boo koy indi ci doomu aadama kon yàlla nañu suñu borom mi nga xam ne mooy borom dimbal te mooy borom jàppale yàlla nañu dimbale taxawunu jàppunu jàppale nu ba li nga xam ne mooy suñ bëgg-bëgg ak li nga xam ne mooy niñ war a mel ak niñ war a doxee ci kaw suuf te mooy li nga xam ne moom la suñ borom gërëm loo bëgg ñu du ko doxe yàlla ñu suñ borom dimbaleel boppam ba ñuy doxe noona di xam suñ bopp waaye di xam ñeneen yi di di di yëg suñ bopp waaye di yëg ñeneen yi di bàyyi xel suñu bopp waaye di bàyyi xel doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kaw suuf itam loolu mooy li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci ñun yàlla nañ ko defal loolu jàpp na ko yàlla nañ koy defal